رمضان رمضان رمضان يا حبيبي asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk yi yéen ñi jàkkaarloo ñun incha allah dëgmal nañ jaamu yàlla gu am solo muy koor gi yàlla nañ ci egg yàlla nañ ko mën a woor su koor gi ñëwee nag nawoon foo woon incha allah waajal na ko ci ay émission yu bëri yoo xam ne ñiin fi nekk tey waxtaan ci diine ji ñoom ñoo koy def kenn ku nekk ñu dolli say heure say bis incha allah man ñaari fan ñetti fan ba ñeenti fan danaa koy dajeeg yéen ci semaine bu ne maa ngi yéen ci xikam yi maa yéen ci débat yi ci bépp thème boo xam ne jullit bi war na koo mën a dégg danañ ci waxtaan ak yéen déwénati leen yàlla nañ egg ci koor gi yàlla nañ ko woor yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañ fekki koor yu bëri salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.